Euh, réussite ci ay relation maanaam àndandoo ak kenn ak moo xam lu leen mën a boole mbokkoo xaritoo bokk liggéey ab sëy lépp rek nee na bokk na ci lii tax nit mën koo tàmbali am ca ndam maanaam problème du am seen diggante nga maitrise bu baax a baax seeni espace yaa ki ngay jëflanteel mu jox la ci misaal ne la bul ko jege ba ëpp ba war a àgg ci di gis ay sikkam waaye it bul ko sori ba ëpp bay fàtte ay rafet rafetam euh, ma jël misaal rek ñaari nit ñu séq benn àndandoo jege du ay espace yi ñuy natt ni ci ay mètre sori it du loolu lim jubloo wax mooy bul xuuse ci sa jëflanteeg moom bay àgg ak moom ci luy tax muy mer ba sikkam di génn wala muy am lu ko naqari ba sikkam di génn mën ngaa jëflante moom ci kaw di maslaxa ba ngeen continuer seen àndandoo te doo xuus ci moom dëgg dëgg dëgg bay àgg ci mu lay wan ay sikkam sore gi nekki noonu bul bul bul ñàkk di bàyyi xel li muy sonn ci yow loolu moom la ñuy tudde di ko sori di dem dem ba yàgg nga fàtte ne moom mii daan lay defal lu baax yi mi defal ci lu baax jege ko di ko tudd foo toll waaye li muy juum ci safaan di ko def melal ni ku ko sori ba tax doo koy gis lu baree bari su lool amee rekk seen àndandoo day mën a neex day mën a baax xam naa danañu delloo ci wax ju xakim boo xoon muy Muawiyatu bnu Abi Sufyaan ci wàllu politique la ko doon waxe waaye bépp relation rek valable na ci mooy su ma doon xëccoo ak nit ñi kawar ak ni mu sewee incha allah du dagg ñu ne ko nooy def mu ne suñ yolamalee ba mu yolam man dama koy ñoot di ndànk ndax bu dul lool neenal lay tudd bu ñu yolamalee nga yolamal neenal lay tudd dama koy ñoot di ndànk mu tàlli bu boobaa ma gis ne ñoom ñi ngay bëgg a ñoddi te ñun ñaar bu ñoddee dana dagg man ma yolamal ndànk bañ ñoddi ñoom ba bàyyi su boobaa dagg du am ki ngay jëflanteel daal boo gisee ne temps yi dafa taral ooye falal ba du ngeen réeroo ba doo gis ay sikkam dëgg dëggi sikkam waaye itam boo gisee ne moom de mi nooy nooy yi nga war a bàyyi xel ci moom dee ko bàyyi xel ba tax doo fàtte ay rafet rafetam loolu rek lañu xegum biñ yoon tey ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa rahmatullah